loolu daal moo ne woon kàddu gu ci lu gàtt ñoo ngi jéggalu ci guddal gi eh, di leen sant bu baax di sant ñi fi teew ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu xaw salaam laay xaw ma asalaamaaleykum na ma ciy wax salaam lay wax wala asalaamaaleykum sunna la nee na loolu sunna la mooy nuyoo waaye delloo bi farata la waaye delloo bi nag moom farata la eh, te ñaar yëpp tële nañ ko nag nee ñaar yëpp nag moom lott na ci tële na ko waaye ñu bàyyi kook yàlla mi ko santaane nee na waaye ñu bàyyi kook yàlla mi ko santaane mu defal ñu ko ci yéen mu defal ñu ko ci yéen ni baatu salaam ëmb mais li ya nga xamante ni moom baatu salaam moom la ëmb muy jàmm muy jàmm war rahma war rahma di yërmande di yërmande boo demee ci yeneen téere nee boo demee ci yeneen bindkat yi yërmaande fii ci àdduna yërmaande fii ci àdduna mooy yokkute mooy yokkute lépp loo nekk rek lépp loo nekk rek mu développé wu mu développé wu moo tax ñu teg ca wa barakaatuhu moo tax mu teg ca wa barakaatu bu bu ko bu loolu amee it nee bu loolu amee it yal na ko yàlla barkeel yal na ko yàlla barkeel yal nañ ko yàlla boole defal ñun ñëpp rek yàlla boole ñun ñëpp ba ci lii mu wax. ba ci lii mu wax. yal na ko ci yàlla jàppale. yal na ko ci yàlla jàppale. diigal ko ci. diigal ko ci. ba jàmm di lépp. ba jàmm di lépp. jàmm rek la yàlla ñaanloo. jàmm rek la ñu yàlla ñaanloo. waaye ci biir jàmm jooju nag. waaye ci biir jàmm jooju. ci la ku nekk di dox. ci la ku nekk di dox. di yóotu la nga bëgg. di yóotu nag la nga xam ne moom nga bëgg. yàlla na ko yàlla def. yàlla na yàlla def. damay faral ci sama wax ju bari. mais dafay faral di wax ci njàngaleem. ku ci mës a julli ñaari rakk yow rek kan moo mën a wéet julli ñaari rakk yoo xam ni bi ngay wax bi ngay def yëpp yow rek la bu la këru ndakaaru gënalee am naa ko fa bu nekkee nag prime bi moom boo bëggee këru ndakaaru am na ko fa bu ba bu la ca ca vingt ca vingt neuf ca vingt neuf ca Médina am na fa këru ndakaaru fa la juddoo na fa juddoo moom mi mën naa la ko jox nee na mën na la koo jox ci prime bu dee këru ndak Tiwaawan a gën a na bu nekkee këru Tiwaawan a gën itam ma jox la ko nee na mu jox la ko bu dee oto gën it nee bu nekkee oto gën it ma jox la ko léegi nga yóbbaale ko yow mi nga xam ne daal réussir nga ni mës ngaa julli yow dong julli boo xam ni ca wax jaag jëf yow yaa ko wéetoo muy naafi la nee na nag muy naafi la wala réponse amul <laughs> ñu laaj président ba xam. Ah. mu nga mu nga mu nga semaine seen maam def ko jënd ni kër googu alaaj Seydou Nour fanaan na fa. seetu Cheikh Ahmada Tidiane Chérif fanaan na fa. rasulillahi Thierno Seydou Nourou. fanaan na fa sëtu Cheikh na Tidiane fanaan na góor gi nekkoon kon du bàyyi mu dem nee góor kër gi daal dama ko bàyyi mu dem jënd ko teg ko ci sunu loxo jënd ngir barke teg ko ci loxo moom nii sëñ ku musa naafila yow rek ñu jox la ko nag ku musa rek ak kër googu li ci nekk ci ay jaar jaar yaa ko moom naafila tu tarwul saar ah? <laughs> ku naafila tu tarwul saar te kooku amul waaye waaye waaye waaye boo dee génn ci julli gi kon lay wax nee na ku naafila te tariwoo saar dana mën a nekk waaye booy booy génn looy wax kon bi nee kon booy julli boog booy génn boog looy wax ginnaaw yow lijjanti nga ba gi ngay naafle tariwoo faatee tariwoo xanaa booy génn nag di nga am loo wax looy wax booy génn nee na booy sëlmal lan ngay wax assalaamu aley assalaamu aleykum ñan waa kum jooju kan ak a ko bokk ndax jamaa la kan kan ñoo ko bokk loolu <laughs> assalaamu aleykum jamaa la moom moom moo tax ànd ànd ànd baax. moo tax àdduna moom ànd. ànd rek la ànd rek la ci yàlla bëgg. nee na ànd ànd rek la yàlla bëgg. boo ne Iyyaaka. boo nee Iyyaaka. yow dong. yow dong yàlla. naabudu. naabudu. lu ngeen koy fiire. yow la ñuy. yow la ñuy. ñun ñëpp yow la ñuy jaam. yàkkan. ba tax bi nga koy wax yow rek yaa taxaw après nga ni ko ñun ñëpp kon yow ak kan a bi doomu aadama yi nga yóbbaale malaayka yi julliwuñu doomu ka doomu aadama yi nga yóbbaale ci bi nga naan yàlla yow la ñuy jaam bu ko defee nag ànd bi dañ ciy bëgg ngir loolu nag ànd bi dañ ciy bëgg ngir loolu ndax ànd bi nga xam ne moom la yàlla bëgg suñu ngeen ngeen ànd ndoo ci nee na ngeen àndandoo it ci lépp lu ngeen di wax mu nekk benn lépp lu ngeen di wax ngeen di ko yëkkateendoo di ko tegandoo di ko def itam nee na di ko def itam ndax yàlla bu ne yaa ayuha alladina amanu yàlla bu waxee yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi gëm ey yéen ñi nga xamante ni wax ngeen ni yéen a ngi ci daairatul iman te nangu ngeen ni maa fi nekk te nangu ngeen ni man maay seen borom maa fi nekk li ma taquluuna lan moo leen yóbbe ci li ngeen di wax maa la tafaaluuna bu ngeen demee ba jëf jot du ngeen ko jëf moo tax nit toujours nee na foofu nit toujours. yàlla day da koy déglu. yàlla da koy déglu ginnaaw ba mu waxee. bi may ñëw léegi. nee na moom bi muy ñëw. bi ngeen ma séenee lu ngeen wax. bi ngeen ko séenee bi muy ñëw lan ngeen wax. simaalik simaalik. te si Malick sant jàmbur la ah. si Malick Malick ko moom jëfu jàmbur la. sant El Hadj Malick la. nee na sant El Hadj Malick la. nee na ñu kuñ ko wax nga yëkkati mbagg. nee na kuñ ñu si Malick nga yëkkati mbagg. yàlla fekk la El Hadj Malick mënoon nga mën ko. yàlla na fekk la El Hadj Malick mënoon wala mu nekk nga ne ca doo yëkkati mbagg. Eh, yàlla nañ ci yàlla boole. nee na yàlla nañ ci yàlla boole. bi ma bi ngeen waxee loolu ma ñëw wax ak yéen. nee na bi ngeen waxee ni sëriñ baa ngi ne mu ñëw wax ak yéen dem li ma waxoon defuma ca dara waaye ba mu ñëwee wax ak yéen ba wax ja sotti mu dem lam leen waxoon defu ca dara bu ma dee ñëwati man a kan bu ngeen dee ñëwati waaw bu ngeen ko séenee kan ay ñëw ah <laughs> fanatisme nag nañ ko nañ ko <laughs> ah waaw kañ est ko kooku moom fa tabaar ah, tabaar ah, réponse bi dëgg a ngi noonu ah, waaw doo ta doo ta perdre sa temps di ñëwaat nee na bu boobaa nag ki nga xam ne lim lay wax du ko def jarul ngay persetaat dem ci moom. ndax amatul benn valeur ci kanamu yàlla. ndax kooku kooku nga xam ne la mu wax defu ko. amatul benn valeur ci kanamu borom. seen ànd bi jàppoo leen bu baax a baax. ànd bi nag na ko ànd jàppoo bu a baax. jàppale ko ci wàllu yëpp nag. jàppale ko moom président Ousmane Sonko ci lu baax ci lépp bépp wàll. mag ñi li ñu gañee woon. nee na mag ñi li ñu gañee woon. bi ñu an bi ñu bi ñu nekkee di entouré Serigne si. bi ñu nekkee entouré Serigne si ànd ak ñoom. bu sëriñ bi defee benn action. nee nag bu sëriñ bi defee benn action. ci saa si lañ ko koy laaj. ci saa si lañ koy laaj ni ko li nga def lu tax. waaye du ñu bàyyi ba génn. waaye du ñu nag ba génn. waaye ñun nag. waaye léegi léegi nag ñun nag. bu ñu génnee la ñuy kaas. bu ñu génnee la ñuy critiquer di kaas. waaw bu ko defee nag moo tax ànd yàlla na ci yàlla jàpp. nee na ànd bi nag yàlla na ci yàlla jàppal euh, boppam. Euh, nuyoo li mu ëmb yàlla na leen ko yàlla defal. li yàlla ëmb ci nuyoo yàlla na ko yàlla defal. li mu wax ci ki ñu dajale te mooy di Sayyiduna Muhammad. nee na li mu wax na ci ki ñu dajale mooy Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Euh, liñ fi li ci yàlla di séddale yàlla nañ ko yàlla boole. li ci yàlla yi séddale ko yàlla boole. te nag yàlla dana séddale nag. waaye nag yàlla dana séddale de. ci yonent bi. ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax mooy soppeem bi gën ci soppe yi. ndax moom mooy soppeem bi gën ci soppe yi. benn taalibe. benn taalibe. ci waxin. ci waxin. Euh, taalibe ak sëriñ ku yilif. waa taalibe ak sëriñ kan moo yilif moroom ma sax. bu taalibe amul. nee na est-ce maanaam bu taalibe amul sëriñ sëriñ dina am. bu sëriñ amul. bu sëriñ amul est-ce que taalibe dina am. kon lu fi nekk. kon lu fi nekk nag. ànd rek. kon àndandoo rek ànd rek ànd rek fi nekk ànd rek moo fi nekk bi mu ñëwee ci Seydi Hadji Malick nee bi mu ñëwee ci Cheikh Al Hadji ni ko damay jàng si ni ko man de damaa jàng si mu ne ko ah doom boo toogee de am na lu fi yàlla indi ko ah doom de boo toogee am na lu fi yàlla indi mu ne ko waaye maam dama bëggoon nga nekk sama royuwaay mu ne ko waaye maam man nag ginnaaw jàng damaa bëggoon nga nekk sama royukaay mu ne ko déet mu ne ko déet ki ñu bind ki ñu bind am na ku mu defaral boppam am na ku mu defaral boppam ba wóolu ko ba wóolu ko teg ko ci suñu kanam teg ko ci suñu kanam am naa lu ma xam ci moom am naa nag lu ma xam ci moom kaay ma jàngal la ko kaay jàngal la ko ñu bokk ko roy ñu bokk àndandoo roy ki yàlla teg suñu kanam muy Seydina Muhammad te kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ko royee rek jàll nee bu ñu ko royee rek mooy royu kaay bi buñ ko royee jàll damay wax kii kii wut mention nee na ki nga xamante ne dafa dem ci jàngukaay ba di wut mention kii di wut table d'honneur ak ki nga xamante ne table d'honneur lay wut kii di wut moyenne. ak ki nga xamante ne moyenne rek lay wut. ku ci ëpp sens. kan moo ci ëpp sens. kii wut. kuy moyenne bu bu ñàkkee moyenne fu mu jëm. nee waa ki nga xamante ne moom moyenne rek la visé bu amul moyenne fan la jëm. buy kii kii wut table d'honneur waaw nga xamante ne table lay wut wala mention wala mention ku ci ñàkk ñaar yooyu bu ci amul ci ñaar yooyu benn am moyen am moyen waaye boo wutee boo wutee moyen waaye boo wutee moyen far ko far ko ñàkk faf ko ñàkk looy am looy am moo tax jullit yàlla dafa bëgg mu wisewu fu sori nee na jullit yàlla dafa bëgg mu am ambition am vision bu sori am bëgg-bëgg am bëgg-bëgg moo tax seen maam Mansour moo tax seen maam cheikhul qawmi seydul haaj Mouhamadul Mansour nee na kuy dem nee na kuy dem yóbbu ut yóbbaloo ñaar yóbbaloo ñaar muñ muñ ak ragal yàlla ak te bañ a geesu te bañ a geesu nee na Sénégal nee na Sénégal li leen tardeel li leen tardeel ku leen ni xëy mooy boo jóg ñu ni la xëy nga taxaw nga taxaw foo jëm foo jëm Tiwaawan Tiwaawan loo fay wuti loo fay wuti doo fa fekk kenn doo fa fekk kenn lan lay def ci sa décision lan lay def ci sa décision yow dañuy waxtaan rek nee dañuy waxtaan rek waxtaanu weccee nag la tàmm waxtaanu weccente la tàmm nag moom day yàq sa xel day yàq sa xel dootoo agsi ni nga yéenee woon nee na dootoo agsi ak ambition bi la taxoon jóg moo tax euh, moom bu daan génn nee na moom bu daan jóg boo ko ne yàllaa ma yëkkati boo ne ko yàllaa ma mu ne o ah mu ne la mu ne la ci yàlla laa jëm ni la ah fekk nga man mii ma jëm ci yàlla de oto bi am na place oto bi nag am na place kër gi it am na néeg kër gi it am na néeg boo bëggee boo bëggee ñu ànd ñu àndandoo wala nga toog wala nga toog xaar ma dem te ñëw ma dem te ñëw moo tax Sénégal waaw moo tax Sénégal loolu nañ ci bàyyi xel nañu bàyyi xel ci loolu booy booy jóg di dem rek boo jógee am benn ambition boo bëgg a dëgmal ku la gis ni la xëy ku ni la nga taxaw nga taxaw mu yàq sa mu yàq sa ko defee nag yal na leen yàlla taxawu nee na yal na loolu yëpp li ma ciy jublu nee na loolu nag li mu ci jublu bu la dara taxee jóg bu la dara taxee jóg téye ca téye ca bàyyi sa bopp ak yàlla bàyyi sa bopp yàlla waaw ngeen ànd ci ànd bu rafet nee na ngeen ànd ci ànd bu rafet jàppoo jàppoo bëgg-bëgg bi bëgg-bëgg bi ngeen di yëkkateendoo ngeen di yëkkateendoo di tegandoo di tegandoo bu ko defee nag yàlla sottal lépp nee na bu ko defee nag yàlla sottal lépp yal yàlla defal leen tawfiq nag yàlla defal leen tawfiq yonent bi yàlla yàlla na ci na leen ci yàlla jox seen cër. yonent bi yàlla na leen ci yàlla jox seen cër. waaye nañ ko fexee xam nag. waaye nañu fexee xam nag. comme Seydina Muhammad. ñun sëriñ si la ñu gën a xam ci yonent bi. ñun nag léegi yittewoo sëriñ si moo ñu gën a yittewoo Seydina Muhammad. te loolu njuumte la. loolu nag njuumte yàlla ak sëriñ bi. bu soobee yàlla ak sëriñ bi. yàlla bàyyi la ak sëriñ bi. yàlla bàyyi la ak ba xam. te sëriñ bi la ëpp soxla yu mu fajul. sëriñ bi nag am na soxla yu bëri lijjanti koogul moom. ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax. waaye ñu bàyyi ci xel yàlla defal leen tawfiq. yal na yàlla defal leen tawfiq Eh, li muy yóotu yàlla na ko ci yàlla jotale président li ngay yóotu yàlla na ko yàlla jox eh, ni mu ko waxee ni nga ko waxee bu gënee bu ko bu gënee yàlla na ko yàlla indi yàlla na ko yàlla indi bu gënul it bu gënul yàlla yàlla def li mu bëgg yàlla na yàlla li mu eh, noonu la ko waxee noonu la ko gisee tey tey noonu la àdduna di doxee na àdduna it noonu lay doxee boo tànnaloo yàlla boo tànnaloo yàlla da koy bàyyi da nga koy bàyyi te wuti ko nag te wuti nag ndax yàlla ndax yàlla boo ko wutee boo ko wutee boo geesoo. boo geesoo. mu ne ilaa man taltafit. mu ne ah ilaa man taltafit. bismillah da nga may dëgmal ba yàgg ngay geesu keneen da ngaa yaakaar ne keneen ku mën lu lu raw li ma mën dafay nekk. wala mu ëppale ma ko. lan moo tax ngay geesu maa fi nekk. yàlla rek a fi nekk. nee na kon yàlla rek a fi nekk. yàlla sabab lu moo nekk ci nit nag. nee na sabab lu nag moo nekk ci doomu aadama. li ma dégg ci Sénégal léegi nag. nee na nag li mu dégg ci Sénégal gii. Euh, bu fekkee loolu la ñuy yaakaar. nee na bu nekkee nag noonu rek la yaakaar. kon coono bi muy def lu mu ciy doye lu mu koy doye. kon coono bii muy sonnati moom Ousmane lan la koy doye. dañuy wax ni euh, xaalis kenn du ko. nee na ñu Sénégal xaalis kenn du ko. liggéey dañ koy. fan fan la lëjee. nee na waaw léegi rek moom dañ koy dañ koy lijjanti fan la lëjee. kon kon kiy jàngale. nee na kon kiy jàngale. bu duggee ci classe bi bu duggee ci classe bi. day génn. day génn. lijjanti. bi. génn. day génn. bureaucrate bi bureaucrate bi génn. day kon li ñuy bind mu war a dox fu mu jëm. kon li ñu war a bind mu war a dox ci administration fan la jëm. ah. bari na. loolu bari na loolu bari na bu ko defee nag yal na yàlla jàppale. wax maa ngi jéggalu dama bari wax torop waaye wax yëpp njëriñ la macha allah. waaye ànd bi ànd bi na ànd ànd bi na dëggu rek. na ànd bi daal na ko dëgg lal rek. sincère ànd bu dëgg lalul dara du sotti. na ànd bu ko dëgg lalul dara du sotti. gisoo lislaam bi. nee na gisoo lislaam. fi mu toll. fi mu toll. jullit yi ñu ëpp wala ñu dul jullit. waa jullit ñi ñoo ëpp ci nombre ci Sénégal walla ñu dul jullit. ci lim. ci lim de ci lim waaw Baye Hadi nee na ci biir lim de jullit ñi ñoo kon kon siir sir sirno la waaw ah, sirno <laughs> <laughs> bu ko defee nag te te loolu yëpp ñàkk ànd rek ko waral loolu yëpp nag li ko waral ñàkk ànd rek moo ñu ko yóbbee dafa am lu fi nekkoon nee dafa am lu fi nekkoon luñ daan wax wa annal masajida wa annal masajida lillaahi ñu ne jàkka ji yàlla ci boppam moom moo ni jàkka moom maa ko moom bàyyi leen ma ko waaye léegi jàkkay waaye léegi nag day am jàkkay tiijaan jàkkay murit jàkkay xaadir jàkkay laayeen jàkkay tukulóor te ñoo te te ñooñ ñoo ñu ëpp soxla te fajuwul nee na waa ñooñu jël jox leen jàkkay ñooñu ëpp soxla foofu te fajuwul te ki doon faj soxla yi génn nañ ko ci loxoom. te ki doon faj soxla yi moom nangu nañ jàkkee ci loxoom. moo tax Sénégal fu mu jëm kenn ku nekk war na ko posé léegi. kenn ku nekk war nga toog di ci xalaat di ci posé question. ndax ki am amatu nekkatuñu ci lu sax. nee na nekkatuñ ci ci stabilité nekkatuñ ci lu sax. mu zab zab. mu zab zab. waaw. buñ demee fii tey suba ñu dem fële. bu ñu gëmee lii tey suba ñu gëm yàlla ñu yàlla defal tawfiq. amiin incha allah yàlla ñu yàlla defal ngeen àndoo nekk benn rek. na ñu àndandoo nekk benn rek. di yëkkateendoo. di yëkkateendoo. di tegandoo. di tegandoo. waaw loolu mooy tax lépp sotti. nee na rek mooy tax lépp sotti. waaye bu kii jëmee nii kii jëm nii. kii jëmee nii kii jëm dara du sotti. dara du sotti. yàlla na yàlla defal leen tawfiq. yàlla jàppale leen. yàlla dolli sutura bi. yàlla teg ko fi mu fi mu bëgg ak yàlla yóbbu ko ci yàlla na ko fa yàlla yóbbu. waaw nit nit nit ku baax day am gis-gis. nee na ku baax da ngay am gis-gis. am bëgg-bëgg. am bëgg-bëgg. xam ni kenn fi nekk. xam ni kenn fi nekk. ku muy yàlla. muy yàlla boo jaaree rek. boo jaaree fi ngay war a jaar rek. àgg. egg waaye boo dee teggi nag waaye boo dee teggi nag ak di xalaat ak a tiit xalaat ak a tiit dara du sotti kuy ñaan yàlla kuy ñaan yàlla da nga naan am na da nga naan am naa kuy ñaan sëriñ bay kuy ñaan sëriñ bay nag amaana ah da nga naan mën naa am daal <laughs> waaw waaw waaye boo dee ñaan yàlla amal conviction que ni li may ñaan am na amaana déedéet déedéet déedéet boolof bi boolof bi waaw bi mooy mën naa am waaw mën naa am Euh, yàlla na leen yàlla taxaw euh, lépp ngi ci loxol yàlla nag lépp mi ngi ci loxol waaye def leen ko rek ci ànd nekk benn def leen ko rek ci ànd nekk benn bu leen xas kenn bu leen xas kenn bu leen doyadal kenn bu leen kenn bu leen toroxal kenn bu leen toroxal kenn bu leen jànn kenn bu leen jànn kenn wut leen li ngeen di wut wut leen li ngeen di wut jàpp ci jàpp ci dem dem waaw moo gën moo gën xaste xaste baaxul baaxul weer nit nee na weer nit xotti suturaam xotti suturaam baaxul baaxul waaw yooyu yëpp yooyu bari na Sénégal léegi nag waaye nag loolu bari na Sénégal léegi te yàllaa ngi wax ci boppam te yàllaa ngi wax ci boppam inna allaha inna allaha hayyiyun hayyiyun waaw fiiril leen yàlla seen borom subhanahu wa taala yàlla moom aji kersa wala moom yàlla ku bëri kersa la waaye si tiirum yàlla ku bëri sutura lay tax yàlla du weer kenn yàlla du weer kenn ku weeru rek ku weeru rek yaa weer sa bopp yaa sa bopp moo tax bu ñu bëggee bañ bañ a weeru moo tax bu ñu bañee weeru bu ñu weer kenn bu ñu weer kenn bu ñu xas kenn bu ñu xas kenn nañu wut li ñu bëgg nag nañu wut li ñu bëgg rek bu ci bu kenn dox suñu digganteeg loolu bu kenn dox suñu digganteeg nag suñu objectif waaw waaw waaye nag waaye nag ñu def ko ci sutura def ko ci sutura ormalante ormalante waaw dañu waxoon ni Sénégal mooy pays de la dañoo wax ne Sénégal bu njëkk moo doon pays de léegi nag waaye léegi nag mooy pays de bu ñu def ñaan. nee na ñu def ñaan. yal na yàlla def tawfiix di di ñaan rek li muy yóotu yàlla na ko yàlla teg ci loxo. ñaanal ah, président Ousmane li muy yóotu ko yàlla teg ci nit ku baax day visé wu fu mu. baax dafay am ambition di visé ay ambition. ñun ñun man Sénégal boo damay laaj damay def yenn say ndax nit ñi am nañu bëgg-bëgg. nee na dafay laaj ba xam Sénégal yi am nañu ay bëgg-bëgg. Ah? Ah, ku bëgg bëgg ku am bëgg bëgg ba pare bëgg noflaay na muy sottee bëgg bëgg ba pare bëgg noflaay bëgg noppalu bëgg nekk à l'aise seen maam seen seen maam Abdou nee na seen maam Abdou damaa wax ak moom dafa wax ak moom. ci benn bëgg-bëgg. ci benn bëgg-bëgg. ni ko incha allahu. ni ko incha allahu. mu ne ma mooy piliyaan yi ñuy tayal. mu ne ko incha allah mooy piliyaan boo xam ne ñuy tayal ñëpp fa la ñuy daje. <laughs> maat maat dëgg si maat dëgg si la ñuy tëdd rek. nee na màggat yi ci la ñuy tëdd rek. maat maat dëgg. maat dëgg mooy maat dëgg day ci kaw mel ni ab piliyaan. waaw wax rek ñu ne la incha allah. nee na daal fa la ñuy jaaxaande boo waxee def benn activité. te du ñu def benn effort pour jot li ñu bëgg <laughs> euh, ah sargal moo dal xel <laughs> loolu moom kenn du ko def wallaay nee loolu kenn du ko def kenn du ko def ba amee yitte waaw dox ko dox ko ba pare rek <laughs> nee na doxal def si yitte ni dana am nag waaye na nga ne ah dana am nag ndax um, man daa bi di alal yaqiin yu jab bi maaraam yàlla ànd ak te ginnaaw ba nga defee li nga war def yëpp yàlla dina la jox la nga bëgg waaye nag kuy geesu waaye nag boo dee wax nii boo dee pare ñu woo nga gersu Euh, moom daal Sénégal ngoo euh, ñun ñoo gën a xam sunu bopp ah, ah waaw ñu def fatiha waaw waaw bisimilah bisimilah ñu may ñu may haadi waaw ah, ñu may sëñ haadi asalaamaaleykum wa rahmatullah lay Ousmane bu yàlla dogal